mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo euh, kontaan la am saa su di ànd ak yéen tey ñu war a waxtaanee ci wàccaayu li nga xamante ni moom mooy 17 avril bi ndax xam ngeen ni ay bés rek ñoom ñoo ci des tey ñu dalal fi ki nga xamante ni moom mooy euh, jëwrin universel euh, Moussa Gueye euh, jëwrin boo xamante ni voilà ñëpp xam nañ ko ci liggéeyu yoon bi rawatina yoonu cant cant yi cant gi ak cantaakun gi sax mën naa ko waxee noonu nekk fi nga xamante ni moom mooy Mali fa gunoon gënoon basé wu nekkoon koo xamante ni amoon nañ tàmmoon nañ en fait di gis taxawaayam bu baax a baax ci yoon bi mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyoo après ñu ñëw ci waxtaan bi jëwriñ Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax te di la siyaar sama mbokkum taalibe bu baax bi di Serigne. Hmm. Euh, Ousseynou maa ngi lay bëggee bu baax a baax te di la siyaar. Hmm. di nuyu senegal gépp hmm. di nuyu ñi seetaan di nuyu waa bitim réew. di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké. xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te di ko ñaanal. Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou di ko ñaanal Serigne Saliou ndigal cuun mu yàgg fi lool te gën a wér di ñaanal sama sëriñ bi ma yeeslu muy Serigne Khadim cuun sama sang bi yàlla na fi yàgg te wér. jërëjëf. d' accord alors ñu ñu ñu war a euh, waxtaan ah, ci wàccaa gi comme ni ma ko waxoon léegi léegi mais balaa ñuy egsi foofu noonu dama bëggoon pour euh, ñenn ñi nga xamante ne amaana xamuñu la donte sax bu dee si yoon mi ñëpp ñu baree bari xam nañ la mais ñeneen ñi nga xamante ni euh, xamuñu la di ay murit mën nga ñu wax tuuti sa diggante ak Serigne Béthio xameel bi gise bi daje bi. waaw jëwriñ sëñ Ousseynou li ma laaj ni lu am importance la. ndax man maa ngi jébbaloo ci réew mun naan Gambie en quatre-vingt-dix-neuf damaa nekkoon Gambie nekkoon fa commerçant ci biir lool yi ma daldi dem ndax ni ma jébbaloo laa la bëgg a bëgg a wax ma daldi dem tëdd ba guddi Serigne Saliou Mbacke moo ñëw sama biir néeg ni ma pëkk-pëkk ma jóg ma ne kii kan la mu ni man la Serigne Saliou damaa ñëw ngir dimbali la damaa ñëw ngir def lépp murit ci biir loolu may wàccu di wàccu ba li nekk ci man jeex tàkk ma daal sigg xool ko mun ma boole naa la ak Serigne Béthio bi ma xëyee ci suba gi ma yeewu dem jóge Serekunda sama quartier bi ma nekkoon Iba jóge fa dem Long ak Laswaf fi ma dëkkoon ci Banjul ma ñëw daje fa seetu fa sama benn xarit daja faak jiwriñam du naan jiwriñ Papa Ndiaye moom laa gis muy yëgle ak cant gu amoon ci aj bi ca Gàmbi muy wax ba tudd Serigne Béthio rek ma ne ko yow mii la ma Serigne Saliou doon wan biig ana mooy Serigne Béthio keroog la woo Serigne Béthio ci téléphone fix boobu unité dalasi la ca Gàmbi ma jot Serigne Béthio munuma neel Serigne Béthio jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira ci barkeb Serigne Saliou ma wax ko mu ne ma naa la sag njébbal keroog boobu bii laa jébbalu ci Serigne Béthio d'accord alors bu ñu bu ñu gënee a avancé ba léegi en fait euh, gis nañ bi nga jébaloo macha allah gis nañ ni da nga amoon taxawaay danga am taxawaay sax laa bëgg wax bu baax a baax ci yoon bi taxawaay boobu noonu te gis nañ tamit ñu bari nañ leen doon indi ñuy jébalu rawatina ñu nekk si wetu si diaspora bi que muy Mali que muy Côte d'Ivoire muy dëkk yi nga xamante ni dañ dañ ñoo loolu naka la demee noonu. waaw loolu eh, dinaa ci sawar wax ci ndax mbir la moo xamante ni du man duma ci dara ndeke sëriñ tubaa mooy jàpp ab jaam def ko noo xamante ni moom jaam bi sax danaan lii lumu te fekk mbir ma nekk ci moom sëriñ tubaa la ndax bi ma ñëwee njëkk a indi ay nit yu jébbalu booba maa ngi doon jëwriñ ca marché central bu Thiès en 2002 la ma sëñ Béthio defoon jëwriñ ma jël mbooloo ma yóbbu ci moom bi ma ñëwee agsi mu xëcc ma dee ma ni ma Serigne Saliou Mbacké bi mu nee ma liggéeyal sëriñ tubaa ñeent yii la nangam ak nangam ak nangam daat di ma tere naa la nga di ko wax ci mbooloo ndax boo ko dee wax dan la coy rey te duñ ca jëlee dara daan na bii ngay def nag da da da da cee bokk te daanaka sudul bii yeneen ñett yooyu sax du mën a am. muy ban. muy indi mbooloo mi ñuy jébbalu ci moom. ndax moom jëmm la joo xamante ni daa wàcc ci kaw suuf ngir dimbalee maanaam ku xamul Serigne Béthio ku xamul lan muy doxinub Serigne Béthio dangay da ngay am tuuti gàllankoor Serigne Béthio. sëriñ Saliou dani ko déglul bu baax de defoo waxu loo wax yow sëriñ Béthio maa la ko wax loo loo it maa la ko defloo bakkan nekku ci àddina nekku ci lépp sëriñ Touba kon sëñ Béthio waxul deful kii wax ci moom mooy sëriñ Saliou kii def ci moom mooy sëriñ Saliou sëñ Saliou tegal ko ci ni bakkan nekku ci àddina nekku ci lépp sëriñ Touba la kon boo gisee sëñ Béthio wor ay oto yi rafet bul jàpp ni oto yu rafet yooyu moo doon ab yiteem déedéet loolu day nduru ci bëtin loolu ñu tuddee bakkan waaye Serigne wu daa teeloon a xam lii moo tax mu ne ko bakkan nekku ci àddina nekku ci lépp Serigne Touba la bul jébbalu ba yàgg nga gis sëñ beccu di tabaxi kër nga naa seen baa ngay tabaxi kër Serigne Saliou prévenir woon na la avant daat ci teg ni lépp Serigne Touba mooy cantam gi rek keroog ba mu buubee mbooloo mi départ ak ay kaaram ànd ak ay mbokkam ay taalibeem ak ñi nga xamante ni ñooy ay soppeem mu fekk Serigne Saliou daaree got Serigne Saliou ni ko waa sëñ Béthio ana lu tax ngay doxloo mbooloo mi ci naaj bu tàng bi sëñ Béthio ni ko Mbàkke xanaa sant si la képp nee na Serigne Saliou mel ni ku firi kanam gi nekk ci mbég mun ko hmm, munu ko xanaa sant si la képp munu ko bis ni tey yàlla bég na yenent bi bég na Serigne tubaab bég na sëñ Béthio ni ko Mbàkke ma def sama jëf ju sama jëf jii yàlla beg ci yenent bi bég ci Sëriñ Tuubaa beg ci su ma ko bàyyee te damaa dof bis ne tey def naa ko muy sama diine cant gi foofe la bàddi ko moo tax tey jii lépp am ñoo ngi koy sant bu baax moom Serigne Saliou ndax su du ak moom du nu xam cant gi ndax su woon ak moom du ñu dem sax ba foon ñeex ni ndeke boo dee sant da war a ren di berne togg say ñam yu bari di ko joxe te doo ci am xej ak seen loolu sëñ Béthio ñu ci teg ñu ngi koy sant bu baax hmm. sa digganteeg jëwriñ Ousseynou Gueye Ousseynou Seye moo sëriñ Bara Sow waaw euh, laaj nga ma ci koo xamante nii xam naa ni euh, nit ñi euh, xam nañ bu baax sama wëlëranteeg kooku jëmm jooju di sëriñ Ousseynou Seye boo nee sëñ Ousseynou sax nit ñi dañ naan ah kañ la doonub sëriñ nangam ak nangam même carte d'identité sëriñ Ousseynou Seye ci ne tooguma fii ci télé bi ngir di wax wala nangam ak nangam waaye euh, kooku day li ma mën a xam ci moom mooy jëmm ju baax la jëmm ju yaru jëmm joo xamante ni man de alquran laa ko xamee xasida yi ak julli waxtu juróom ak def lu baax waaw di ko ñaanal mu wér te yàgg fi mm-hmm. ndax xam nga lu tax mag moom dañoo bokk dëkk Thiès boo génnee këram sama kër ngay dugg te man du ab dof yàgg naa ci yoon wi tuut lu may gone gone gone sëñ bee sëñ beecoo ma yar waaye jëmm ju baaxee noonu man day gis naa ku baax ku ne ñépp a baax waaye man day maa ràññeetle mm. ak yaram ak mbaaxam ak teg gi mu teg ñamu àndal ci njàngum alxuraan ak xasida ak dëkk mm. yàlla yàlla na fi yàgg te alors euh, gis nañ sëñ Béthio Thioune daf la tegoon ci loxo soxna Aïda Diallo. Mhm. Euh, diggante boobu loo ci wax sa diggante ak soxna Aïda Diallo. <laughs> waaw sëñ bi euh, soxna Aïda moom Diallo. Mhm. Mhm. sëñ Béthio li nga wax nii dëgg la bokk bokk na ci ñi nga xamante ni daf maa njëkk a booleek moom man Mali. maa tax soxna Aida ñëw fa Abidjan noonu ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir man yi di ay raison daan nañ fa ànd ay cant daan fa dem waaye nag euh, gis nga lii xew ci jamono ji man day duma nekk fii di wax ay vidéo di saaga baa may wax wax yi ñaaw mm-hmm. baa may wax wax yi bon mm-hmm. Serigne Béthio yarewu ma noonu man lu rafet rek laa xam te loolu laay def ku nekk nag sañ nga kala neex nga ànd ak moom yaa may dégg baax mm-hmm. soxna ayda sëñ Béthio boole woon na ko ak man dëgg la waaye man nag damaa sukkandiku ci waxi sëriñ Béthio ci bi bi fii ne dinaa la ci wax ñaar sëñ Béthio sëriñ Saliou dani ko képp ku waroog waxi xalif général des mourides jàppal ni waroo ngaag waxi sëriñ Touba ndax yaa ngi dégg baax mm-hmm. Serigne Abdou Lahad bi mu fi nekkee ñëpp xamoon nañ ni moo yoroon kàddu yoonu murit sëriñ Saliou dey da daan sol ay dàllam di waaxu di dem ba ci kër Serigne Abdou Lahad mm-hmm. di ko laaj ndigal te boobii kat sëñ Abdou Lahad moo woo sëñ Béthio sëñ Béthio ñëw ci moom mu ni ko sëñ Béthio santal yàlla mu ni ko jërë jëfati sëriñ Saliou mu ko waa ji ma ni santal yàlla mu ni ko jërë jëfati sëriñ Saliou sëriñ Abdoul ni ko yàlla xamal na ma ni sa xol bii sëriñ tubaa képp ci nekk mu ni ko ay ay Mbàkke moom de yaa ngi may dëggalaat ni sëriñ Saliou day mooy sëriñ Touba mm-hmm. ne man Mbàkke sama xol bii ku dul sëriñ Saliou Mbàkke mm-hmm. nekku ci mu ne ko duma ma yem ak foofu ak yow yàlla xamal na ma ne sa dere ji sa cër yi dañ cee mooñaale Serigne Touba du ma ne da ngay dem ñu topp sa ginnaaw du ma ne da ngay jiitu ñu topp sa ginnaaw dañuy ànd ak yow ba fa kanamu Serigne Saliou sëñ Abdoulaye moo ni sëñ Béthio xanaa xamoon ni Serigne Saliou Mbacke mii mooy Serigne Touba yow nag dan laa wax loo moo tax nga am cër bi waaye li nga xam ni kat ah xam nañu ko de Serigne Saliou moo ne Serigne Abdoulaye xam na loolu waaye Serigne saaliw doon gi mu doon xalifa Serigne Touba. moom sëriñ Abdoulaat moo taxoon lu musaane xew muy dem di laaj yi ndigal bi sëriñ wu defee damay ñëw ci li nga ma laaj ma bëgg laa tënkal ci euh, ni nga xamante ni man noonu laa toppee waxi xalif général des mourides ndax man ñëpp ma xamee woon ak soxna Ayda moom moom yi ànd nag moom fu ne soxna Ayda tournée bi mu mujjee def mm-hmm. euh, ci àllub Tamba bi ak Malem Ñaane ak fépp ñun ñoo ko àndee man la sëñ Béthio woo woo Thiès ni ma tracel yi fi maa ko tracel dëkk yëpp daanaka def nañ ci àll boobu weer di dafay tourner yaa ngi dégg baax mhm. waaye sëriñ Béthio bi sëriñ Saliou làqoo ci biir këram la toog jannatul maxwa daat ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa jébbalu woon ci sunu maam Ibrahima te ñëpp xamoon ne ni yenent bi moo ëppoon doole sunu maam Ibrahima ndax ci leeram ci lañ sàkkee lépp bi sëriñ Tubaa làqoo maam Cheikh Ibra daa dem jébbalu ci sëriñ Modou Moustapha te ñëpp xamoon nañ doole ji maam Cheikh Ibra amoon kon sëriñ saaliwu du làqu may wan ginnaaw kër sëriñ saaliwu maa goree di kon maa jébbal sama bopp sëriñ Seex ànd ak moom foofii rek laa kal yëfi moo tax bi yëfi xewee bi sëriñ Muntaxa dugalee kàddoom ni indil leen ma sëriñ Béthio Touba sëriñ Bassirou Abdou Khader mu baax bi ñëw keroog Madinatu Salaam ak kàddu yi sëriñ Muntaxa gëm fa indi wax la muy wax ah man kat du def lu dul toppi waxi xalif général des Mourides du ma def lu dul déglu yoonu Mouride du ma def lu dul def lu yoo yoonu Mouride bëgg loolu yee tax ma dem seet sëriñ Xaadim Cuun moom sëriñ Béthio yees lu ci moom. ànd ak moom muy jëmm ju baax. mais lu tax lu tax demoo ci Serigne Saliou. lenn la. Mm-hmm. ndax boo àndeek Seydina Thioune mu baax mi. Mm-hmm. ànd ak Serigne Saliou Thioune ndigal. boo àndeek Serigne Saliou mi daal mu baax mi ànd ak Serigne Saliou Thioune ndigal. boo àndeek sëriñ Khadim Thioune Mbose mu baax mi ànd ak Serigne Saliou ndigal. boo àndeek ak Serigne Saliou Suisse ànd ak Serigne Saliou ndigal. boo ànd ak Serigne njurul ànd nga ak Serigne Saliou ndigal. boo ànd ak Serigne Khadim Thioune sama Serigne moom Serigne Béthio. ànd ak Serigne Saliou Ndigal boo ànd ak soxna Aïda Diallo nag. ah. boo ànd ak soxna Aïda Diallo nag. waaw li ma laaj ci laa la tontu àddunaa amay seetaan daa am loo xamante ni du ci xuus ca la ma mën a xuus laa la wax. d'accord <laughs> d'accord alors euh, gis nañ ni euh, euh, le 17 avril ñëw na daanaka. Hmm? Euh, tey tey déglu nañ euh, liir nañ ci journal l'Observateur ki nga xamante ni moom mooy Serigne Saliou Thioune muy wax ni moom jógul ci di boole famille bi maanaam rassembler famille bi rassembler képp kuy cantaa pour lépp ñu nekk benn wax jooju yow noo ko gisee te yaa ngi gis ni am na ñu ba léegi ñoo xam ne ñu ngi taxaw taxawaayu ànd ak soxna Aïda Diallo <coughs> moom nee na jógul ci eh, di boole famille bi yëpp ak taalibe yëpp ñu nekk benn. Euh, Serigne Saliou ndégal ginnaaw ba mu doonee Serigne Saliou ndigal dañ cee war a teg ni borom yar bi dafa yaru bëri teggin doon nitu làppee nitu jàmm Serigne Saliou ndigal li lay wan ni Serigne Saliou ndigal euh, nit jëmm ju tedd la baayam da ko waajal li la koy wan mooy cantaakoon ni ñu ci ëpp xamuñu woon Serigne Saliou ndigal waaw parce que loolu mooy en fait doguma la. Euh. doguma la maa ngi jégalu. Mhm. ba euh, loolu moo tax sax ñu bari jàpp ni euh, mbir yi sëñ sëñ Béthio Thioune bi muy dund naam sax jóge fi mi ngi si mi ngi si ñun ba léegi. Mhm. dañu jàppoon ni moom gisuñu ko woon si cant gi lu baree bari. bi sëñ bi laaxoo fi la ñëw. ankay ñu gi ñenn ñi gis ñi soxna Aida Diallo moo ko gënoon a rëy taxawaay ci maa ngi jégalu ci kàddu gi. mais ñenn ñi Serigne Saliou Ndigal waaw Serigne Saliou Ndigal. Mhm. boo déggee man la ñu bëri xamuñu ko woon ci cant gi. Mm. parce que daa nekkul woon nit koo xamante ni cër da ko fi indi indi woon déedéet. cër indiwu ko fi woon. bëgg ko woon loolu moo dal sëñ Saal mi daal moo dal Seydina Thioune moo dal Serigne moo dal keneen. cër indiwu ko woon ci cant moom Serigne Saliou Ndigal te pourtant boo xoolee image yi nga xamante ni ay siyaaru 87. Mm-hmm. Serigne Béthio heure bu musaana dem ci Serigne Saliou. Serigne Saliou ndigal la ka daan topp. wax na ko sax tey ah wax na ko tey Serigne Béthio heure bu musaana dem ci Serigne Saliou ba ci siyaar bi nga xamante ni bokk jàpp na vidéo bi nga xamante ni jàpp na ni mooy vidéo bi bi nga xamante ni moo gën a fëst te nit ñi di ko partagé mooy fii ko sëñ Saliou joxe mbubb yi te muy dukkat boobu boo seetloo Serigne Saliou ndigal moo moo moo tee yëre te amul cant guy xew ci Mermoz te Serigne Saliou ndigal teewul da doon nit koo xamante ni daa tasawufe daa doon jëmm joo xamante ni bëggul kenn me daa bëgg ñëpp am jàmm te foo ko fekk reem ji fës foo ko fekk muñam bi fës Serigne Saliou Ndigal nii nga xamante ni géré na ko tey jii ci kër baayam di wootee nii ci jàmm ak ci jàmm ak salaam loolu moom la mës a teg aw tà tànkam te mësu koo teg barke sëriñ Saliou Mbacké mm-hmm. nii la demee. Mm-hmm. sa mbokk yi nekk di ànd ak euh, Soxna Aïda Diallo. doo leen woo fii euh, en direct ñu ñëw euh, jokk si Serigne Saliou Thioune wala Serigne Serigne Khadim euh, Thioune. sama mbokk ya sa mbokk cantaay yi nga xamante ne ñoo waaw dañoo ci Soxna Aida. Mhm. woo fii laa ñëw. ànd ak yéen liggéey bi mu kii. da nga naan sa mbokk taalibe yi. sa mbokk ñooñu. Mhm. samay mbokki taalibe lañu. tout au ñoo bokk Serigne Serigne Béthio. Mhm. ñooñu ñoo bokk jébbalu ci Serigne Béthio. yaakaar ko di ko liggéeyal mais yëfi yàggul di ba dara war war waar fee xew yëfi yàggul di deux ans am déet. ah mais deux ans yi nag bëri na bëri na bëri kuñ ci romb déedéet man sama mbokk taalibe yooyu man dama la wax au commencement. Eh, mais am na ñoo xamante ni doguma la maa ngi jégalu ci dagg bi ma lay dagg. mais am na ñoo mm-hmm. xamante ni sax man am naa si si ñenn ñu ma xam. Mm-hmm. ñoo xamante ni depuis ba ba ñu jébaloo fee ñi jébalu fii dañoo dagg lien yi maanaam WhatsApp sax. ak numéro téléphone sax ñooñu dañuy dugal liste noire est-ce que mbir war na egg foofu que euh, si kii laa jébbalu si kii laa jébbalu war na tax ñu dagg sax lien amitié yi. waaw xam nga yenent bi ci jàmm lay dox te daa bëgg jàmm l'islam boo xoolee li ëmb l'islam lépp mooy làppee jàmm man Moussa Gueye laa wax man mii toog xaw ma nag keneen ku toog fii ci sama àddina kenn duma boole kenn man ci jàmm laay dox ci làppee laay dox ci salaam laay dox du ma saaga du xuloo du ma xeex du ma xas kenn ci koo ma laaj nag ci cant gi la ma xam ci moom ci ak mbaax dinaa ko wax mm-hmm. c'est ça 17 avril bi ñëw na wàccaa gi foo lañ ci toll fuñ ci musa a ren fooxe na ko romb na ko ndax Sëriñ Tubaa dani madda ilay yalwaasixul mul faridu naylan bihi fi en farido saa su nekk moom Serigne Touba tànk kanamam mi day gën a fës Serigne Saliou ni Serigne Béthio fileeg mbirum sëriñ tubaa ngi dox say mbir di dox kon day wane rek ni 17 avril bi ren di nga gis loo mës mës a gis ndax da nga ni Serigne Saliou ndigal ren di ren di ren ji dina def loo xamante ni am na sox lu ñu mënta wax ci ab ab tele waaye ren di nga gis loo xamante ni. ak yokkute la di gis loo xamante ni mësta am ndax Serigne Saliou kat daa waxoon ni sama daara yii kat na ngeen leen fonk Serigne Béthio gis ngeen li mu fonkee woon dongay Serigne Saliou yi daan togg di yóbbu ci daara yi daan xotti mbubb di yóbbu ci daara yi daan faj dongay tarbiyey Serigne Saliou yi Serigne Saliou ci ndigal bi mu ñëwee. foofu la teg aw tànkam bërki de moo njaay rek la dem togg ji yóbbu daara yi njurul yóbbu ci daara yi ba yóbbu daaru salaam murit fan naan Maodo murit ca daara yi sëriñ seex ya mooy daaru salaam murit kon kooku xam nga ni te kat fi may wax ak yow chaque dimanche mi ngi ci ndigal ndigal loolu ànd koog ki nga xamante ni mbokk taalibe yu baax yi ñi nga xamante ni dañoo bëgg Serigne Béthio mbëggeel goo xamante nii seen alal bëgguñu cee def lenn ci lu dul ndigalu Serigne Saliou mii di Serigne Serigne Serigne Béthio lay wax euh, ni taalibe yi tasawufee ci loolu Serigne Béthio am na bis musoon na ni am na ci ñoo xamante ni ñi ngi jëf-jëf joo xamante ni du ñu bëgg sax ma wax seeni dama la ciy siteel jëmm joo xamante ni ku baax ku ñuy wax Lamine Diop transitaire daa am bis sëñ Béthio di woote ak cant di toog toggulu keroog sëriñ Lamine Diop moom mu jëwriñ Lamine Diop universel daa ñëw indi ay nagam ba noppi dem toog ca ginnaaw bi sëñ Béthio di woote ci biir baas bi naan ana Lamine da ko jëf ba pare bëggul ñu wax bi muy woote man maa ngi ko gis mu nekk ci biir kër gi waaye bëggul woon a fës. moom it mi ngi dox doxin wu rafet woo xamante ni. mais mais kéemaan la. doguma la gisoo ni ren mën na mën na ñenn ñi sax ñuy njort mu xaw am pëcc xoo euh, li tax ma koy wax mooy Mbour Medinatul Salaam euh, boo xoolee soxna Aida ñenn ci euh, ay taalibeem ñu ngi dégg ñu commencé ni ñoom tam dañuy dem foofu pour pour bëgg <coughs> am ci taxawaay bi nga xamante sëñ bi daana ko am. taalibe sëñ Saalu ci Cuun itam ñi ngi wax loolu gisoo ni ñu ngi xaw a ragal Mbour xaw am pëcc xoo tuuti. lépp yi Serigne Béthio ci jàmm lay dox. lépp ci jàmm lay mujj lépp ci lu rafet lay lay lay mujj wax nga ko léegi yow yaa trouvé sa question yaa ne sëñ Saliou daa joxe déclaration woote ci ak jàmm dajalawaat taalibe yi woo leen ci ak jàmm te noonu la waxee kon ñun luñ ci waxaat lu nekk rek dañuy bëtt ndigal jàmm rek ay am. ban ak ak cant la. Mhm. d'accord xam nga bëggoon nañ gën a yaatal waxtaan bi xam nga mbiru bi bu ñu siy wax fii ba suba du doy mm-hmm. mais xam nga mbiru mbiru mbiru temps moom mbiru temps bi moo lay guidé alors lan ngay daanale ak ban message ngay envoyé sa mbokk taalibe yëpp ak wàccaaw yi li nga xamante ni moom mooy 17 avril bi waaw li may daanalee mooy maa ngi euh, sant yàlla bu baax di sant Serigne Khadim Thioune sëñ Béthio damaa boole jëmm jooju seen Khadim Thioune ñu gën koo xamee ci sëñ Khadim Thioune Espagne gën koo xamee ci sëñ xaadim cuun député gën koo xamee nag ci sëriñ xaadim cuun ndigal muy jëmm ju baax sëñ Béthio li lay wan ni daa fonk sëriñ xaadim maa ngi fàttaliku màggal ga mu yëkkati woon un milliard cent trois millions jox ko ni ko demal Mali àndal ak Moussa ak ñi nga war a àndal ngeen dem jëndi nag yi màggal gi sëñ xaadim cuun boo ko fekkee ci biir Mali talul lu dul jënn li ko bàyyam yónni dëpp di nit ku noblesse di nit ku baax nit ku ñoddiwul dara nit ku bëggul dara lu dul mbooloom sëriñ beccu mi bëgg nit koo xamante nii jëmm la joo xamante nii du mere kenn xolam bi daa set wit di tu teel kenn dara sama sang boobu ndax kat ku ndamuwul sab sang moom keneen koo ndamoo da dangay ngay perte core ku li ab sa njaay maa dem ba musa mboore musa mboore maa dem ba kenn du Serigne Khadim. maa la bëgg di la ñaanal nga yàgg fi te wér. jërëjëf Thioune. Euh, dafa mel ne am na sa benn sa benn sa benn xarit ah sa xarit sa mbokkum taalibe bi àndal est que doo ko woo mu ñëw mu ñëw sàjjal ñu si rek sëñ sëñ Saliou defal ñu lu ndaw rek. waaw euh, Serigne moodu Ngom. Serigne Modou Ngom mi nga xamante ni. Hmm. moom day woykat woo xamante ni ñëpp a ko xam. Hmm. mu doon jëmm ju yaru. Hmm. doon jëmm ju baax. woo ko kon Modou Modou Ngom. ñëwal bàkkal ñu Serigne Saliou ndeysaan man de dama lay way sëñ saal cuun wallaay sëñ baay ba cuun lan lay xoole man da dama lay way sëñ saal cuun wallaay sëñ cuun lan lay xoole jëfe ndigal a gën a wóor jëfe leneen wallaay billaay jëfe ndigal a gën a jëfe leneen wallaay ndokku biñ ko jëfe nii sa baay ba cuun siggil nga ko man da dama lay way sëñ saan ndigal cuun sëñ becco sa baay ba cum la ndoy xoole billaay sëñ Muntaxa Mbàkke mooy sëñ Tuuba Sénégal sëñ Muntaxa Mbàkke mooy sëñ Tuuba billaay jox na la kaala ga déjà merci beaucoup merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax ça a été un plaisir quand même servir Ouzin ngeen doon àndal ci wàccaayu li nga xamante ni moom mooy 17 17 avril bi tey ñu fi doon dalal euh, jëwrin universel musaa Gueye seriñ musaa Gueye di ko jaajëfal bu baax a baax ci ñëw bi mu ñëw ak waxtaan bi di leen jox rendez-vous beneen yoon ci euh, beneen émission jaajëf jërëjëf merci